fanqalabu bi ni'mati min allahi wa fadlin lam yamsashum suu wattabahu ridwanallahi wallahu zu fadlin azim wasalaatu wasalaamu ala man bu'itha mualliman sayidina muhammadin safati bani adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli lihsaan wa radiyallahu an baqiyati salaf wa xudwati alxalaf faxri diini wal watan mawlaana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul acheikh mouhamadul muntaxa alxalifatu al aam bi tariqati muridiya xafidahu llahu taala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 indi itam ngir ñu ñëw jàmmarlu loola loola nag naka jekk ci àdduna ba àdduna sosoo ba nëgëni loolaa dox waaye ba àdduna tukki wallaahu mutimmu nuurahu walaw kariha al-kaafiruun wa yaaba allaahu kon suñu borom moom alxaqu saabitun wa amma albaatilu in ala fa zaahiqun wa saabit yàgg yàgg dëgg moo nopp safaan moo nag ak neen itam donte neen nga dem na ba gën koo kawe jaag jaag day gën a suufaat ci la Sëriñ Tuubaa ñëw nag ngir xett li mujj jamono mooy bis bi nga xam ne cële fi xëye woon yu fukki fan ak ñett ci war a sama dem liggéey li rasulullahi sallallahu alayhi ngir xett li aw xeetam nga xam ne bu tukkiwutoon xeetam yëpp lislaam mën naa ba ñàkk si ñoom ñi cëpp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 boo doon xool leetar yi nga xam ne moom la doon yóbbante ñi mu fi bàyyi bokk na ca jëwriñ ñoom ñu ak Cheikh Ibrahima Fati bi adulihi ay man bi loxool nday jorom boo xooleen leetar yi ko sëriñ bi di yónnee boo dëgërul lool say ronxañ dana sotti ko waaye la la ciy gën a yéem nag mooy boo fàttali ko condition yi sëriñ bi nekkoon waaye boo xoolee leetar bi da ngay seet dalu xel gi bi nekk ak force bi mu àndal te la ci ëpp la mu ciy wax mooy fàttewuma leen ci jàmm na seenum xel dal dana dellusiwaat ci jàmm kon kooka xamoon na la ko tax a jub wóoroon na ko di dellusiwaat xamoon na li mu war a àndaale kon ñuy fàttaliku natt yooyu natt yu metti yooyu ndax sëriñ bi nekk na ca Gabon lu jege juróom-ñetti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 àndaaleeg ndam bu wax ne lii aw si li des yi uridu an fa'i bi yàlla yaa ma xam ne ay fay mooy bis bi ñu màggal li fukki fan ak juróom nag ba mu fay bàyyi su fukki fan ak juróom natt bu ko mos a teg bu ko mos a teg tegaatu sëñ bi te nattu yaay li muy li muy tartaat ni ko ñëpp di yéegee ni la ko yéegee. lu rees buy agsi rek rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dana ko xamal ko nattu bi agsi na noonu la Serigne Touba nekkee moom juróom-ñetti at yu man tuuti yéen nekk ca Gabon ba ñibbi si Touba ba dem gànnaar juróomi at yam fa am yëpp boo jógee fa dem ci yéen ñeenti at ak nangam yam fa am yëpp noonu la ko wéyale ba agsi njariñ nattu yi di wéy ba loolu nag 1920 wala 21.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 boo ko sëriñ bi santaane itam daa xëy bis woo fekk booba sëñ Moodu Busam Gede moo ko yónnoon addiya jox ko sëñ Buraay sëñ bi tëyale ko ko ba mu àgg ci fukk fan ak juróom-ñett ci weeru safar sëñ bi soppiloo ko bëriwu am xa am xaaf bañ àgg ci sëñ bi ne ko nañ ma ko defar wax ko ni mu ko war a defee ginnaaw bi itam nga woolu nga yónnee sëñ ma jaw paxa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 bu màggal bi masaan agsi fu ne dana fa togg ay teraanga indi kon loolu mooy li jëkk ci bisu ci liñ ci war kon noonu la ko Sëriñ santaane mujj gépp itam si njaareem noonu la ko dundee mosu koo jëlal ginnaawam itam xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa nag ba muy nekk njaareem dafa nekkoon taxta iqaamatan jabriya moo tax jullit àjjuma sa waru ko ku jullit àjjuma war nag warut xamoo fii ngee fanaanam dëkk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 taala ñëpp di daje fii ci Touba mooy jëmm yoo xam ne ak fardoom ak yitteem ju kawe ak xalaatam bu rafet kenn mënu ko natt waxtu boo ko fekkee rek bis ba nga jàpp ne teel a a gën a sonne boo ko fekkee ci biirum néegam da ngay fekk mu yóbbu jikki bi jàng talal ko sax du ko def kon kooku dara àddina tollu ko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 nit ñaa ngi làqatu ci biir kër yi mooy daal nga tere yi de yàllaa ko njëkk a tere rasulullahi tere bàyyi Sëriñ Tuubaa ñëw yeesal ko nit ñi bàyyi man Abdul Ahad bu moo ko teree nit ñi làqatu ci biir kër yi di ko def kon loolu doy na ci sëkk Sëriñ Saliou itam dégg ngeen ba tàyyi muy Sëriñ Abdou Khadir Mbacké it noonu fa ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mayoon mu wéyal ko bi sëñ Saliou liggéey dégg ngeen fàttali ñu woon ba tey bis xëy jël na di soobu mag wax ne rajo yi nañ leen yéene comme ni si te loolu xalaat yu sori la ci na bis it ne loolu ay gisee yu xóot la ci amoon yoo xam ne ñëwatuwaat ci rajo ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bi mu fi nekkee noonu la naa def wéy ca. fa ko sëriñ saa yi bàyyi woon di yeesalaat tere yi sàmmonte bi ak ah, Cheikh Sidi Moxtaar it bi mu ñëwee noonu la ko wéyee armée yu bees yi fàttaliku ñaan bi mu xëy joxe ndigal ne bu ñu fa dencati kenn booba jaaxaloon na nit waaye ku dem ci armée na gis na armée de feese da xam ne bu fekkonte ne juróom-ñaari ak yëpp foofu lañuy denc ba léegi kon armée lu fu jëm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 aw fi yadayhi aw bi daarihi maa bal kullu za kaana xaraaman mu ne am tere bu ñu ko dee def itam waxoon tere ci biir këram ñu fekk ko fa ci biir këram loolu loolu xëtt ndax lislaam dafa am ay loolu sëñ bi santaane ko ñam ko digga tam xam nañ la leen sëñ bi digga Baay Faal moom yàlla def na na seen maam di Cheikh Cheikh Ibra ñoom yàlla defal leen tafe at mu sottuwul lu leen Sëriñ Tuubaa digal ko yokk duñ ko wàññi fu leen ci sëriñ bi yem la fa si xel bi ñëpp dal ñoom duñ yàq te duñ toroxal kenn ndax kuuru Baay Faal yi kat bu rëy la waaye néew gis Baay Faal bu dóor kon ñoom damay wax ne ci Sëriñ Tuubaa rek lañ def waaye ñu ànd ak seen xel ñu ñu ànd ak seen xel kenn ku leen yow ci àdduna wut te seet la bu ëppee ubbi bu yesee ko xamal ni ko noonu kon ñun itam dañ koy ci dimbale ñu gën bi xam ne li siñ bi santaane ay ndigal dama ko teram amul ci xàjj ak seen na sëriñ Tuubaa daa doxee rek sëriñ Tuubaa dafa yor yàlla moo tax ñi ko wëy si woon ñi di dooy boppam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 marché yi nga xam ne toxu ku dem ci àdduna sépp am na foole ci capital yu mag yi mu nos ko ndax dëkk yu bari ay bayal yoo xam bu ñu fa defoon ay marché dana gën jege nit ñi te nit ñi dañu soo liggéey jox na ndigal bi ñu liggéey ci ñeent xam naa ñoom fu ñu ci toll bu noppee danañ ko leer nit ñi ba ñëpp ba ñëpp xam ko sëriñ bi ci yërmandeem àggoon na ci xëy bi soo ma ne ma damaa bëgg yëkkati xaalis def ko ci marché bi ndax yërmande bu ma di yërëm mooy bu ñu dindi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 leeral na léegi waajtaayu mbalim ndax loolu mooy li jëkk ci waajtaayu mbalim li liggéeyu màggal muy premier safara di ajjuma ji jee ca topp kon loolu itam at ci soññee ñëpp ne ci ñëpp taxawee nañ ci daa taxawee kenn ku ci lañ ci daa xam ne ren dana gën a métti ndax màggal gi dafa tolloo a dugg comme tolloo xam ne dana gën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 bàgg ci màgg yi dara soppiku bokk na ci conférence yooyu yi ci gën a rek mooy conférence yi ñuy def ci quartier yi te benn ñu jégleel ko Serigne moo penn Mbacké ñëpp xamoon tolluwaayam ak fi mu toll ci digg Serigne boo ci ba ca dese Serigne moom itam xam ngeen ne ñëpp xam nañ cër bi amoon ba àgg ci.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 bu ñu ko liggéey nit ñi dana jëlee jiw mooy bi romb diggante kër Cheikh Mouhamadou ba dem ba kër sëñ bi yoon yooy xam nga ne dafa bokk ci mbedd yi gën a jege jumaa yi te gis ngeen nan la waaye ñi ngi dalal seen xel ci nag ko dund bu set ñu defaraat wax naa leen tey jii ne lu xat-xat ne ba defoo ko li ñu mën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 Cheikh Abdou Khadre Mbacké daal lett ne Cheikh Modou Moustapha moo ko ne Sëriñ Tuubaa de nee na ma àjjana bis amu fa waaye bu ñu demee ba ëllëg képp koo xam ne yaa ngi naan màggal sama bis ci àdduna boo xam ne kon nañ xam ne bisu Sëriñ Tuubaa bis la boo xam ne mooy suñu bis na ko Cheikh Modou Fatou Mbacké daa waxee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 ndax màggal bi bu dee ba àgg si ndax dafa am ay yu bari am na wàllu social ndax nit ñi ni ci dimbalante natt bi kenn xamatul ko ñi ci jaay li ëpp dañuy wax ne 70 pour cent liy jaay ci màggal bi ñu ngi koy jaay tànn kon màggal Tuubaa fànn boobu bokkul wàllu li ñuy dugal ci réew ci wàllu social itam am na solo ndax bu ñu xoolal màggal Tuubaa bokk na ci li indi ak dal ci réew ndax màgget gi bu ci àggee mënoo xàmmee kii ci xeet yu bokk wala kii ci xeet yu la bokk ñëpp ku agsi ku ne na koy jàpp si jëmm jàppal ko bokkal ko bokk na ci itam li nga xam ne màgget gi dana ko indi mooy wàllu jaamu yàlla gi tamoo li ci jiitu bokk na ci li ci ëpp it mooy wàllu diplomatie bi nga xam ne màggal Tuubaa dana ko indi bari na ay kër yi nii yoo xam ne seenu déggoo fii ci màggal Tuubaa la dem na ba àgg ci réew ci adduna sax dana gis ñaari réew yoo xam ne ci liñ mën a xam ñaari réew yooyu seen alaaka diplomatie dañ koo seen diggante dagg waaye bu ñu agsee ci màggal Tuuba ñëpp ne moom kon màggal Tuuba li ci nekk njëriñ kenn xamul mu toll. nguuru Sénégal itam li nga xam ne màggal Tuuba moom ñu ngi ko ci gagné mën na ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ci biir nguur jafe te boobu loolu ëpp nañu te màggal gi fu toll bu déwénee da koy wax.